salaamaaleykum am internet yu Dakar Buzz ñu ngi leen di nuyu baax di leen siyaare di sant yàlla di am mbégte jógaat tey solaat sunu daal ànd ceeg association ànd taxaw ñu wéradi di gërëm seen DG Pape Niang di ci liggéey liggéey bu am solo mook ñi nekk sama ginnaaw bu ngeen gisee lii rek xam ne tey beneen bis bu spécial boo xam ne malaat mental boo xam ne koo xam ne dafa am feebaru xel nekkoon Maroc di yëngu di liggéey yàlla def xam naa ñàkkul lum jafe-jafe yu mu dund foofu am fa problème mu xel jóge Maroc daw dik di fitnaal waa kër gi nag di leen sonal dem bay génne paaka ci ñoo xam ne ay jigéen lañu tey association ànd taxaw ñu wéré di ceeg Dakar ba social fas yéene ñëw na tey pour jël ko génn ko pour mu am jàmm waa koñ bi am jàmm waa kër gi am jàmm duma ci wéet nag dama ci ànd ak gaynde yi ci ginnaaw ñu ànd dem jëli ko ci biir nan dem ci biir Seydou. yaay booy yaay Awa la Awa kii kii tey lan la ci yow. Awa Sall. kii ñu jël si tey lan la ci yow. sama doom la. nu mu tudd. wul bi ma wàdd. Ibrahima Wade. Ibrahima Wade waaw. tey jafe-jafe yi ngay dund ak ci biir kër gi lan la. Eh, sonn naa sonn naa. sonn naa. jafe-jafe dund ak ci kër gi la. dama bëgg a bëgg a rey. jël paaka rek jël paaka rek dama rey. fan la nekkoon ba lii dal fee. Fara si di Maroc waaw. alors bi ko lii léegi boobu ñaata at la. juróom-ñaar juróom-benn juróom-ñaari at waaw. léegi nag tey lan nga ci dimbali waaw waaw. siyaar bu baax. man Maroc mbaa maa maa ngi sant alhamdulilah. Ibrahima Wade. Ibrahima luy problème. waaw Maroc laa nekkoon. bi ma bi ma nekkee buux ma si benn étage ñëpp ko seede fii ñëpp xam ne si étage lañ ma buux léegi ma daanu si benn étage ñu yóbbu ma si benn hôpital Assane Tani léegi bi ma yóbbu si hôpital si Assane Tani jël sa. non non non lay wan de dama lay wan mesure bi baaxul ñun fii baaxul mesure bu ndaw la waaw léegi nag xam nga lu wax na ba pare léegi nag xamal ne bi yàqu ba pare léegi roi bi si duwal tuwo foofu noonu hôpital bi ñoom ñoo si duwaloon tuwo léegi xam nga lu moo def jox benn sióor moo man ma dem benn douche bu ngande sama tool ni sama li sama sama kaang bu ngande bi yàqu sama sama liggéeyukaay yi ma doon jamee di jaar Espagne yëpp yàqu léegi ma ñëw fii benn sapeur bu ñëw ma daanu fii si ñëpp ko seede boo si kër gi daanu si kaw arwaas kàng bi léegi nekk kàng bu ndaw bu bu nekk xupp léegi la xama la xam maire bi rek jël jël code bi ne ko koy koy jaar mbaaw di ma pour di ma piqué mbaaw te piqué mbaaw bi baax moom am amul xaalis amul man munu munu ma tere bañ a wax tamit sama yooyu wax ku dagg ku dagg rey say enfant da wax samay enfant dee na mesure gudd bu doon def une deux bu ma gisee gel rek day def une deux gudd may nekk ban ngeen ngeen di tënk sama mag nekk Italie li ma jox xaalis ma gérer kër gi xam kër gi yor affaire dépassé yëpp xam la léegi noonu la demee marocain bi moom moo def coup bi. léegi ñu ne da ngay dem ba jël paaka di xeex ak sa yaay la ma fi la daan daan si kaw arwaas. sapeur yee ma daan si kaw ma koy fay. ma may nelaw may may ma doon nelaw si kaw déglu wax di wax man léegi ma ma gaañ taxaw si kaw si kaw arwaas bi sapeur bi di bif man xam man du ma yóbbu tey am na kenn sax ku ko seede ku ñëwoon ma yëg si kaw arrange bi ko dama ma yóbbu tey mu wax yow léegi boo wax la mu demee nu mu nag maire mu demee ba pare saa pël bi ñëw dégg daanal ma kàng bi lekkawu lambal kàng bi xópp la lekkawu na ba pare sem ag teraat xam nga xëyut su nit léegi man xeexuma ak moom marocain bi laa bëgg a duut bal ne ko man munoo ma tëng munoo munoo duut sama def yi kiwoo xam nga la marocain bi laa bëgg a duut ne ko munoo duut surtout bañ fay assurance biir asentaan yi ne ko roi Marocain bi complexe la su ko neexoon day fay assurance ma ñëw principal toog foofu di glacé du fajow ñoom ñu bañ fay bañ fay assurance ne clandestin la amul amul papier ko fay sama opéré bi ngi xool seet loolu ànd xam opéré bi ñàngul waat xoolal xool si digg ginnaaw yaram bu doon dugg ñaay di sport di ñuy ba nekk suuf bu ngande yaram bi yëpp toj maire bi bi muy wax xamal la moo ko metti fii si biir kër gi man maa yoroon xaasu dépassé lépp sama mag bu nekk Italie yóbbantewul yóbbantewul dërëm heure bii bañ leen ñoom tamit contre leen du leen jox lek du leen jox naan ne que maire bi bi muy wax wan waxuma ak moom maire bi complexe la bu baaxul woo sa doom lu toll ak 45 fois sapeur nga ne mbaaw nga koy pikiroo te du jaar mbaaw kàng bi lekkawu na ba xam ne toj na ba pare nga ne mbaaw nga ko nga koy fajee te du fajoo mbaaw moo tax ma ne ko maire ma waaw su ma yoroon xaalis sax mu mu dund ko moom xam nga dem ba woyaa yaa eh, non dama dama dama demoon ba jeexal xaalis yow déglu ma yow boo demee ba gaañ sa yaay kan moo koy fay non demoon naa ba jeexal xaalis demoon naa ba jeexal ma xaalis dama ne boo gaañee sa yaay kan moo koy fay eh, kii musuma ko gaañ daf ma daf na moom lu gën a garaaw moom gaañ ci kaw arrosé léegi léegi baalu ko ñu yóbbu la léegi moom moom moom baalu sa yaay mais moom ma gaañ may yóbbu ko may yóbbu ko si kaw arrosé ah, baalu ko non non soxla lu dégg kii moom li ma def moo garaaw nga naan mo moom moo ma daanal si kaw ardoise moom si kaw ardoise la ma daanal. ñoo yéeg te moom moo ma woo sapeur man man la si kaw ardoise toj ba yàqu kaang bi toj des tuuti. kaang bi toj na des tuuti Pape situation bi doy na waar. léegi nag kaang bi toj na tuuti bi doy na yaakaar naa ni boo déggee ni muy communiqué maanaam bu fekkee euh, xel mu dem na demul à 100 pour cent parce que léeg-léeg mu wax wax joo xam ne dafay neex a dégg. nan nga jàngate situation bi ko demoon ci àll bi di liggéey ngir wéejuram indaale li situation bi Fadel fu ko waay natt weesu na ko sunu yaay ji sonn na trop jooy na ma guddi jooy na ma bëccëg njëkkoon nañ fi ñëw jël ko yóbbu ko hôpital injecté ko bi injection bi wàccee mu gën a ànd ak agressif dem na ba kër gi ñëpp dañuy tëju moom rek mooy jaabante bu kenn ñëwee di def intervention mu yëg ci kaw étage bi. bu nee sapeur moo ko daaneel du dëgg moom ci boppam moom ci boppam sapeur yi ñoo ko bëggoon jël ngir fitna bu mu doon fitnaal yaayam bi sapeur yi ñëwee mu tëb mu tëb daano bi mu daanoo waa koñ bi def nañ ci ay témoignages fekkee nañ ko ñoo wax loolu mais Fadel kii o dëgg yàlla méritowul jamono bii nekk ak yaayam démb fajar 4 heures du matin la yaayam ñëw sunu kër billaahi ndeketam mi ngi toog ci bunt bi ba ba 9h bi 9h jotee maire bi ñëw ak ay jooy yu metti dëgg yàlla instant bi nag association taxawu ñu wér te yàlla tax dañ koy jël yóbbu ko Sokone dalal ko ca daara ja lu tolloog at wala ñaari at ba xel mi gën a dellu si te yàlla tax parce que kii mënul nekk ak yaayam fii. jërëjëf boo gisee ni muy waxee da ngay xam ni bàyyi ko ci kër gi wóorul parce que ku dem ba jàkkaarloog sa yaay di wax wax ju toll nii. damay jàpp ne kii nekkul malade war a des ci kër gi. association ànd taxawu ñu wéree di ànd teg Dakar Buzz social wax ji wax ci daal mooy nañ jël kii yóbbu ko pour waa kër gi ma a nekk ci jàmm waaye yaay mën a nekk ci jàmm parce que lii ma gis tey jii mu yëndoog waa kër gi wóorul. wóorul nii la dëkkee ak ñoom fa Fadel nii la dëkkee keroog biñ fiy ñëw ñëpp dañoo tëju kër gi am na ñaari góor yu fi nekk mais kenn ñemewu ko ndax agressivité am ba pare moom ci boppam bu la xoolee marocain bi lay gis ñu fas yéene ko jël nag Fadel yóbbu ko ca daaray Cheikh Idrissa Diouf fële ca diwaanu Sokone mu nekk fa ak góor yàlla yi ba xelam dellu si à 100 pour cent mu soo a mën a dellu si waat mais fi mu toll nii ak melokaan bii moom moom kër gi dina noppalu bu baax a baax waaw moo gën bàyyi la fa nga gaañ sa ah, yaay parce que yaa ngi wax sa yaay yokk yaa seytaane la dafa ma bañ dafa ma bañ seytaane la nekkul seytaane rek moom moo tax mu ne damay dem foofu leer laa lay wax yow ya yow yaa yaaya waaw foofu laa bëgg a dem yow yaa yaaya waaw tey moom nan lii mu wax ci yow ndax est-ce que ñu bàyyi laag moom. wóor na déedéet na na dem na dem. si état bi ñu ko ah non kër gi ma defee ko mais maa a ñëw ñu sar rek. maire bi ma maire la. sécuriser leen ko. waxuma la ma bee ko tëgg. marakee bee bee baaxul. ma waral fay assurance. marocain baaxul marocain bi dafa soxor bu buux ma si étage ku la buux si étage baax na. baaxul moom ndax ku la buux si étage ba nga daanu ba xam ne sa yax yëpp. toj na la mais Maroc la xew fii Sénégal la. xam na wax naa ba nit ñi dégg ko marocain buux ma si étage si étage su buux si étage ku ci sa morom di ko buux si étage jël <laughs> dugal si tuyau parce que yoom nga xam ne yoom naa ba xam ne màgget naa ba sama lépp jeex na mariage aw ma ko doo dégg mariage aw ma ko joxal ordonnance. dee dee nii moo des ma tëdd waaj waaj a dee. faju amul boobu nga def amul dara li ñuy si mën toog seen toog ban ñëw sama kër nga naan loolu si mën. xanaa nga di bu ñu ñëwoon fii rek problème sa lamiñ bu rëy bi téye ko nag. yow ñoom sama gaale yii sama góor yàlla du ñëw sama du ñëw sama gaale. yow Baye Faye ah, Baye Faye Alaaji Mbacke Baye bul Thank you.